يقيني إلى الجنة ما ليس يحمد رسول كريم بي تنازار أحمد وخاني عسى والموت والجعل سرمدا رسول سفيه في baraaya muhammadu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokk juliti bokki taalibe yi bokk yi ni jàkkaar lool bu ngeen gisee jataay bu sell bu barkeel bii ngeen xam ne ndigal bàyyi ko na fa baax a bàyyi ko ci sëriñ Tuubaa sëriñ Muhammadu Muntaxa Mbàkke mi ñëpp di ñaanal yàlla yàggu ànd ak wér ñëw ju baax ju gore ji sëriñ Cheikh Ahmadou Mbàkke moom sëriñ Tuubaa Cheikh Abdou Khadir Mbàkke ak kan sëriñ Cheikh Abdou moom sëñ Modou Mbakke moom sëñ Abdou Khadir muy lan bis bu ñu fàttaliku jàmbaar lislaam góor yàlla ga ka doon woon baayam ba doon na maam ja te fit ak jom ja ak diine jëg lislaam ja mooy kan sëriñ Modou Mbakke moom sëñ Abdou Khadir bis nag kan moo koy woote soxna maam Faati Mbakke bintu sëriñ Modou moom sëñ Abdou Khadir moom sëñ Tuubaa Xaadimu Rasuul bis bi kañ lay doon la 24 octobre fan lay doon Baxdaad barab ba nga xam ni fala la jàmbar ja nekkan Cheikh Abdou Khadir Mbacké ba suuri lay alayhi salaam fekk ko fa béréb boobee nga xam ne sëñ Muudu da ko daan yaale fonkoon ko lool fa la maam fàttali wootee bis nga xam ne ci fàttali ko waajuram ba sëriñam ba sëriñ Muudu Mbacké moom Cheikh Abdou Khadir waral kàddu gu jëkk gi daan ko jébbal sëriñ Khadim Mbacké moom sëñ Muudu moom si Abdou Khadir dina woote ci mboolem kàddu soxna maam Faati ak lu mu wax ci bis bi ak xamal bis bi lan muy sabab mi ak lu ko waral kaddu gi jëm ci mbokk yi soññee mbokk yi kan la koy jëbal sëriñ Ismaila Mbacke moom sëñ Modou moom sëñ Abdou Khadir waaye kaddu gi jëm ci taalibe yi ak daayira yi ak njaboot gi turandoo sëñ Abdou Khadir turandoo sëñ Modou yi sëriñ Jili Jang lañ koy jëbal waaye ci biir jataay bi jataay bi ku ne xam na ni sëriñ Lamine Diop moom sëñ Abdou Khadir dina ñëw ay béyit yu am solo yoo xam ni dana ci fàttali ko jàmbaar ja sëriñ Modou Mbacke moom sëñ Abdou Khadir bis bi nag ren dafa am lu ci xew loo xam ni jokk bokk la soxna maam faati delloo bu mu ca bay bay ba delloo wat sa ca ndaa la kan la ko tudde sëñ Moussa Mouhamed moom sëriñ Mbàkke soxna loo dara jaare ko kon sëriñ Cheikh May waaye nag kan la ko parane jàmbaar ja ka nga xam mook sëñ du ñoo bokk lépp bokk si Abdou Khadir bokk pas-pas bokk yéene muy kan soxo muy Mbàkke bindu si Abdou Khadir Daaru Salaam kooku la ko parane kon daal sama maam Faati ah juumul de bis noonu kon kañ lay doon la 24 kon nu bàyyi kaddu gi sëriñ Xaadim Mbàkke moom sëñ Moodu mu wata ci kaddu soxo maam Faati moom sëñ Moodu asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu mbokki jullit yi mbokki taalibe ñoo ngi leen di nuyu kenn ku ñu turam ak santam ci ñu ngi wax ci turu soxna Faati Mbacke soxna maam Faati Mbacke moom sëriñ Modou Abdou Khadir di jiital ci nuyoo bi sëriñ Mouhamadul Mountakha te di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool te may ko wér ba naal yi mu am ci liggéeyal sëriñ bi lépp mu àggale ko te ñu moom di ci teg sëriñ Cheikh Mbacke ñu xalifa sëriñ Abdou Khadir di ko ñaanal suñu borom yàggal ko fi lool moom tam ba naal yi naal ci liggéeyal sëriñ Abdou Khadir suñ borom may ko kattan ñu ànd ko moom. te di ci teg xalifa sëriñ Modou sëriñ Abdou Khadir mu si Abdou bis bi nag eh, soxna Maam Faati mi ngi koy amal ci ndigalul ay kilifaam ñu war ko amal ca Touba Baxdaat di sàkku teewaayu mboole mbokk yi ak nga xam ne ñooy wolori sëriñ Modou ak mbokki taalibe yi ak yi te ñaan képp ku ci teew suñ boroom fajal la say aajo mbooleem soññ di soñ mbooleem daara alxuraan yi ñu ñu nañ ci daan taxawee muy njàngum alxuraan mi ndax kon ku xam na sëriñ Modou ak digganteem ak alxuraan ak mbooleem jànkati xasida yi moom tam sasiñ ci amoon ñu di ko ñu ñu def ko nañ ko daan def ñu ngi soññ ñëpp daal ñu kenn ku ne na nga daan taxawee ci bés bi nga taxawee ko te ñaan mm, mbooleem li ñuy ci bés bi ndax kon ne xam na suñu wut digganteem ak mm, yonent bi sallallahu alayhi wasallam te ci weer wi ñu koy amale mm, muy turandoom di soppeem kon ñu ngi ñaan ci daraja weer wi mboolem li ñu sàkk ci bis ba rek ku fa ñëw daje fa ak ngërëmul sëriñ bi. nuyu ñëpp mbokki jullit yëpp ak mbokki talibe yi góor ak jigéen mag ak ndaw di jël ci nuyoo bi Cheikh Mouhamadoul Mountakha Bachir di ko ñaanal fan gudd ak wér gu yaram ak njabootuk sëñ Tuubaa gépp ak taalibe yëpp di ñaanal sëriñ Cheikh moom sëriñ Abdul Xaadir fanu gudd ak wér yaram ak njabootu sëriñ Abdul Xaadir gi ñëw ci bunt bi nga xam ne mooy buntu kër sëriñ Modou mu sëriñ Abdul Xaadir di ñaanal sëriñ Cheikh Abdou mi nga xam ne moom la yàlla jiital ci liggéey bi mu ànd ko njaboot gépp suñ borom barkel li nga xam ne moom lañ naa la yéenal seen waajuro nuyu ki nga xam ne ni kenn la ci njaboot gi muy soxna maam Faati yëkkati kàddu yoo xam ne xëy na kàddu ñu ndigal la yoo xam ne bett nañu yaakaar naa ñi fi jaar rek seen kàddu doyoon na euh, bis bi nag yàgg nañ ko ànd moom di ko dundal te leen génn ci la nga xam ne ni maamam ja moom la daado doxe mu sëriñ Abdul Xadir Mbàkke muy istixaama yaakaar naa nag moom bis bi ña daa fekk jataay ba ak la la wundu bis bi muy ñaanal waajuram wi nga xam ne yaakaar naa ku xam na diggante mag soxna maam Faty niñ demoon ci jëflante bu rafet ñu bëri xamoon nañ ne léegi-léegi daana togglu ay ñam yoo xam ne yaakaar naa moom la ci tànn ngir mu defal ko euh, ñam yu mel noonu Euh, nit nag boo amee waajur mu tànn la ca biir njaboot gi di la defaloo ay teraanga yoo xam ne ci boppam la jëm wala ci waa kër sëñ yi loolu war nga ko delloo njukkal war nga ko fàttaliku te nit it bu amee njaboot bàyyi leen fi la tax mu wàcc leen fi mooy di leen la tax ñuy wutu njaboot muy boo demee ba gisutoo leen ñu lay fàttaliku kom nag mel na ne defal na ko waa kër sëñ Abdou Xaadir képp dañu gàttal ci woote bi rek di ko daalee ci bunt yi nga xam ne ñoo bokk ci maam maharam waaye nag ëtt bi nga xam ne ni mooy njabootu Serigne Touba gi boo tàmbalee Cheikh Mamadou Moustapha ba Cheikh Mamadou Mourtada ñu ngi woon ñëpp waaye nag kër Serigne Abdoul Khadir ñu ngi tàmbalee ci buntu kër Serigne Cheikh moom Serigne Abdoul Khadir di woo ba ci kër Cheikh Mamadou Bachir daanaka kon tënk na ñëpp ndax ku rek. sëriñ Modou jëflante na ak yow jëflante goo xam ne lenn ci njaboot gi ku ci woote rek ngir ñaanal sëñ Modou kon mel na ne yéen lañ koy defal kon ñu ngi leen di ñëpp muy góor jigéen mag ndaw ba sunu bàjjan yi nga xam ne ñoom la yàlla cere ñoom it ñuy sunuy bàjjan te di njabootu sëñ Abdul Xadir ku dalee ci soxna moomi Daru Salaam ak soxna eh, moomi eh, soxna moomi soxna ma ami tuuba tudd na ñëpp kon nag bis boobu bisub fàttaliku la bisub ñaan la ñoo ngi ñaan daal képp koo xam ne ni teew nga fa liggéey bi nga xam ne ni li sëriñ Modou na ko sëriñ Touba liggéeyaloon ko njabootuk sëriñ Touba gi loon ko taalibe liggéey liggéeyaloon ko sëñ Abdou Khadir ba ku ne xamoon na ne sëñ Abdou Khadir ñàkk sago gi ñàkkoon sago ci sëriñ Modou ngir ak fonkel waaye du ñàkk sago ñàkk sago ngir bëgg doom waaye pëste fu mu gisoon ci moom ak bëgg sëñ Tuubaa moo taxoon kon nag bu soxna maam Faati ñëwee taxaw taxaw taxawaayu góor euh, ñu ñëpp war nañ ko cee jàppale war cee solidarité fexe ba bis ba jag bis ba nag dara jiituwu ci lu jàng alquran xasida def ay salaatu ala nabi bernde bu ko defee ñaan lante yàlla suñ borom yokk yool bi ak bépp jullit bu mu fa fekk te mu sëñ Touba li nga xam ne ne moom la doon sàkku suñ borom gën ko ko doole la kon ñu ngi jéggalu ci kàddu yëpp di woo taalibe ak seex yëpp nag muy seex sëñ Touba yëpp bàyyiwuñ fenn li ko dalee kër ba waa kër seex sax jenn ñëpp rek wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu. di ci woo taalibe yépp na ko bàyyam daa woote bi mu fi ne seex Muudu Abdou Khadir rek la koy woote ndax sëriñ Abdou Khadir ñii la am ab taalibe ak wëllëre ak soppe. nee na mi ngi ciy woo ñëpp nee na itam mi ngi ciy woo daayira yi nga xamee ne ñoo aj ci kër maamam gii muy fédération yi di ci jiital Serigne Mamor Serigne Mamor Diatra mi nga xam ne moo yor tubaab yi ak Cheikh Gumba la man nekk dakaar ma yor ba nee na mi ngi leen ci woo. di ci bëgg seen teewaay ñoom ñëpp mu am ci na lu ko ñor lool lu ne ci xolam lu dëggu ci moom mu wax ko muy waajuram woo xamee ne. dafa àndoon ak sëriñ Muudu Abdou Khadir mu xam nam àndee woon ak maamam sëriñ Abdou Khadir xam ni mu àndee woon ak sëriñ Muudu Abdou Khadir mooy bàyyam bu baax bu mu sopp bu mu bëgg bu mu gërëm di sëriñ Mamor Say ak soxna Ami waaye juróom yooyu dem la wax ne dafa bëgg ñu fàttaliku leen ci ñaana leen ci ci alxuraan ji ak xasida yi ak salaatu ala lu ci waay man rek nañ koy defale sëriñ Muudu nañ ko sarale ba ci ñoom ndax nee na gis na wóllëre wi nga xamee ne séqoon na ko ñoom loole nag Mbàkke ñun ñi fi toog ñëpp ku ci nekk borom kër yi ñi nga xame ne ñi ngi feeg ñi fi nekkut seere nañ taxawaayab sëriñ maam Mamoor Mbàkke moom mii ci kër sëriñ Abdou Khadir ndax bi muy man ñun ñi ñëpp moo ñaar waaye mës ta fekke lenn lu yàqu ci kër sëriñ Abdou Khadir te jagut loolu moo doonoon liggéeyam moo tax bi bisam bii jàll feeñ na ci lool ku ne xam na ne am na ngërëmal sëriñ Touba am na ngërëmal sëriñ Abdou Khadir kon boo ko dee fàttaliku Mbàkke am ci yéen a jooji yaakaar naa ñëpp daan la ci jàppale ndax ñoom ñaari ñooñu ku ne xam ne ay defarkat lan woon mosuñoo fekke benn xottiku te ñëwuñu ko mësuñoo fekke lu yàqu wala lu bëgg a yàqu tas fexewut ba loolu dak ñun seere moom li ci baax rek da ngay seere li nga xam loolu xam nañ ko ci sëriñ Mamour ak sëñ mu Moudou Abdou Khadir kon daal nee na bëgg nañu fàttaliku leen ci fànn yëpp nee na mi ngi woon ñëpp bàyyiwut kenn ku yaakaar sëriñ Abdou Khadir di taalibe ba ca mbokki busoo bi gade ñëpp nee na mi ngi leen ndax ku ci nekk waajuram nga mbaa ngay maamam rek nee na mi ngi woo ñëpp bayut kenn nee na mi ngi sant bu baax di ñaan yàlla suñu borom nag a ah moom nag jàmbaar la ndax la sëriñ Moudou Abdou Khadre daa wax rek doomi gaynde moom bu ñëwut tam war naa xonq libat ba ñëpp xam ko bàyyi ma ko waxoon fii ñëpp di ko dégg waaye moom ma nga ci yoon woowee kon nag ñi ngi ñaan ci daraje sëriñ Tuubaa barkeb sëriñ Moudou Abdou Khadre ak barkeb magam yu baax yi ak rakkam yi yàlla na leen yàlla jàppale ban làq seen ngërëmal waajur loolu ndax moom ci jub ak siraatal mustaqim rek la tege woon kon ñu ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di woo ñëpp nag ci bis boobu euh, ci baxdaat lu ci waaye man ci alxuraan ak xasida ak salaatu bi nga defal ko sëriñ Modou Abdou Khadir ak sëriñ mu Say moomu ak soxna Ami Mbacke moomu ak ñeneen ñan fa fekk ñëpp yàlla suñu borom jot leen ci yool beeg yiw bi di jëf te yàlla rek tax Cheikh Jili moom ci lii la sax lii mu jiwoon yàlla na sax ci ak njabootam neel amin njaboot gi yàlla nañ ko añe ñoom ñëpp añ bu kenn dije te nag bu leen kenn gañe nañ cëru fii cëru feneen taawam bu doy woon ba lool te gore woon te fonki tool te dudd woon addina lool yàlla na ko leew jox yeneen ñëw na ba dem kenn yebu ko murid bu ne gërëm na ko maamam la gën di sopp ko mosul di hittewoo leneen Mouhamadul Mahmoud turam sëñ mbakke mu tudd turam lii tax mu sax ci luñ gërëm semmal na bëri yi fi newoon yàlla na yàlla wuutu ko ci ak njabootam sàmm ko ba lim jiwoon ñu góobi ko aar leen ci ndog yi ak yeneen kon soxna Mame Faty mi nga xam dafa ñëw bëgg a màggal bisub sëñ Modou moomu ñu ngi ko ñaanal mu am ci ndam loo xamante ni ndam lu kawe lay doon ci barke Sëriñ Touba ndax màggal sëñ Modou dafa màggal ay waajuram yëpp moom sëñ Modou waajuram wu ne da ko fonk tegoon ko ca kaw kenn ku mu jëflante ci yow ngir sëñ Touba kon nag Mame Fadil bu dee jëf loolu yàlla na ci am ndam ci barke Seexul Xadim jërë ngeen jëf mbokki jullit yi mbokki taalibe baa ngi noonu kan moo koy woote jàmbaara lislaam moo koy woote ki nga xam ne nekkul kër baayam kër maam rek ni damay jigéen muy kan soxna maam Faati Mbakke moom sëñ Modou moom Cheikh Abdou Khadir ñu ngi ñaan yàlla fanam yàlla gudd lool waaye jàmbaar ja sëñ Modou yàlla na yàlla yokku leeram soxna maam Faati nag bis bi xam ngeen ni da ci am yéene am ci pas-pas dégg nga ni mu ci yéene yàlla na ko yeggale da ci fàttaliku waajurum ba sëñ Maam Mor Say moom la ji falilu jàmbaar lislaam diggante sëñ Modou ak sëñ Maam Mor ajuma gaaw bis doxu fa bëgg ko lool fonk ko lool si mu dem jiitu ko àjjana si Mamoor taxaw njaboot gi taxaw kër gi loolu war ne ko di fàttu ci alxuraan ixtifaar la ak soxna mi Mbàkke kon bokki bis baa ngi noonu bis bi nag ku ko woote tudd jàmbaar yoo xam ni lu am si Abdu Xaadir Mbàkke waaye nag lu am si mudoo dama lu baax lu baax foo ko fekk ku baax ko fa def waaye boobu saxee nag defarkat yaa si mu defar na kër bàyyi mbaxëy dem bàyyi ko sëñ seex yalla yàgg nu ci woo kan Alaaji Ablaay Mbay Peex géwlu Xaadim Rasul ki nga xam ne si Abdu Xaadir ko ba tey moom am peex ci ba Cheikh Abdou Khadir Mbacké sama maam fàtte woon na ko ci ak kan Souleymane Ndéné Ndiaye ak kan Pape Diop ak kan naa Jong ak kan Amsadou Sall te yi ñëw xare ñu ngi woo ci bisu jàmbaar yi fàttaliku si Muudu Mbacké moom Cheikh Abdou Khadir kan moo ko woote su xamam fàtti kañ lay doon la 24 altine dëppoog lan ñaar fukki fan ak juróom-ñaar Abdou Karim xabar nañu ko ci woo altine ñaar fukki juróom-ñaar ci gàmma dëppoog ñaar fukki fan ak ñeent ci de octobre 2022 fan lay xawee Baxdaad Baxdaad nag mbir nga fa lu fa xaw Cheikh Abdou Khadim Mbacké ne jaww ji faj jaww ji jaww ji rek day faj kon nag dama di bis baa ngi noonu ay to programme mooy xëy jàng Alxuraan jàng xasida ixtifaar basmala berne continue ba tàkkusaan waxtaan ku koy def nag jàmbaar islam ki xam waxatu dëgg la am na diina am ngor am lislaam bari xam-xam lool di mbokkum réew mi waaye di mbokkum sëñ Moodu muy kan sëñ Mbacké waxtaan ko kookoo koy def waaye njàngum xasida mi ku koy def nag sëriñ Mbàkke ñang mu yarut a baax ak kan Alaaji Xaadim Ngay jàngkat jàmbaar sëriñ Mbàkke Sonko Lo jàmbaar ji waaye nag bis ma fàttali ni kenn ku tuddee mooy kan sëriñ Moussa Mouhamed borom la booji xalifa sëriñ Mbàkke Sonko Lo lu ko waral diggante sëriñ Moodu ak sëriñ Mbàkke waaye diggante sëriñ Abdou Khadir ak sëriñ Cheikh Ahmadou Mbàkke Gaynde Fatma kon bis baa ngi noonu la ko dara jaale sëriñ Cheikh May dégg mbokk pare na la ko kan soxo muy Mbàkke moom Sëriñ Abdou Khadir borom Daaru Salaam kon bal bi fi baa ngi noonu woo na ñëpp bawunu kenn bawunu fenn Daaru Salaam Bagdad Alié Guédé Soura Touba bawunu kenn boolem bustaan ba kala ngay dem Thiel bawunu kenn ku fa jëkk gën ku fa mujj gën wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu